ci kaw doxoon loxo yi ci xanaa danga dof loxo yi ci kaw doxoon loxo yi ci xanaa danga dof loxo yi ci kaw doxoon loxo yi ci xanaa danga dof loxo yi ci kaw doxoon loxo yi ci xamoo samay at loxo yi ci kaw doxoon mag la xamoo samay at salaamaaleykum Ndar Géej toogaay yi rafet na laa ilaha illallah gis naa ni toogaay bi yàq des intellectuels macha allah vous étiez tous des élèves université Gaston Berger fi la nekk moi si j'étais un élève étant un élève en classe de cm am na ñoo xam ne classe chaque jour ci ginnaaw la ñuy toog na ngeen yëkkat leen seen loxo bu leen rus gars yi ñu yëkkat leen seen loxo waaye tamit nag waaw sama gars yi jaajëf eh doo leen jàng doo leen jàng yéen te da ngeen di passer par force waaw ah, man xam naa li may wax xam naa li may wax et eh, Doudou Ndiaye sama xarit la maag moom ñëw bokk classe bi ñu duggee école ba CM2 ñoo bokk classe jim du jàng te day passé par force yàlla natt ko benn jour prof bi jox ko enquête jim xamul luy enquête jim jëlee enquete bi doole di daw day ñëw kër ga daa yegg si rek fekk papa ji mer papa dama defal sama enquête papa ji ne ko fëtsee jim bind fëtsee ci kaye bi doy saal bi la dugg fekk yaay ji seetaan film Van Damme yaay dama defal sama enquête yaay ji ne ko la Jean Claude Van laa tal mu bind Jean Claude Van Damme jim tëdd jim bu daan jàngi dañ fu mu yeewu jim moo yeewu boppam sept heures boot saagam di jàngi daa génn fekk mbindam bi di woy naan les accompagnements dund les accompagnements ci kayam yàlla natt ko ñu ñëw classe prof bu fàtte enquête bi jim moo jóg ne ko monsieur vous avez oublié l'enquête prof bi daa tiit ne ko woy jim daal nous allons faire l'enquête prof bi ne qui va au tableau jim jóg tàllal loxo eh prof bi gën a tiit woo directeur bi woo yenn prof ñoom ñëpp ñoo mujj àndandoo di ko woyal naan ko jim njaay dem na tableau jim njaay jim kii jékki-jékki rëkkal keesum kenn jékki-jékki rëkkal keesum. Jim Ndiaye Jim Ndiaye dem na tableau eh, Jim Ndiaye fi mu taxal tableau bi monsieur bi ne ko oui Jim Ndiaye Jim ne ko fëtse. monsieur bi ne ko tu te prends pour mu ne ko Jean-Claude Van Damme. eh monsieur bi ne ko sor mu ne les gens accompagnez-moi. waa Ndar Jim daa wax li muy wax ba pare taxaw sur place prof bi xam ne kii li muy wax nii xamu ci dara. mu ne ko Jim on va faire calcul mental 2 plus 2 Jim nekk fa naan ko égal Jim 2 plus 2 2 plus 2 ne ko nii mu ne ko égal parax bi fa Jim dem jënd 4 beñe dugub mooy beñe yooyu ñuy def ci kayitu ciment yi parax bi daa ñëw indi beñe ne ko Jim j'ai 4 beñe avec moi maintenant à la place de 2 plus 2 on va faire 2 moins Jim 2 beñe moins 2 beñe égal Jim ne ko diwlin ak papier. e ndar géej jim tekki na maa dox ba gis jim ci arrêt Louga bi fii mu jàpp naa ndaar ndaar ndaar Saint-Louis ndaar ndaar ndaar fii ndaar Saint-Louis ko rafet doo fay paas ku ñaaw ñaanil paas ndaar ma ci ron baa bi géwél ci kalson bi e mag jim vite fait ñu xamante mu nuyu ko ñu bëggee vite fait ñu ambiance yow benn paa yéeg ci car bi yow bari wax amee waa car bi imagine toi car nga yéeg kenn laaju la paa biy wax yéeg naan mais non mais da leen lekk yàpp yàpp dafa baax ci nit man mii ngeen di gis 2 kilos yàpp laa lekk doo ko yëkk kaar bi génne kër naa sax yow kaar bi doo daal la laal paa bi wàcc sóob bi naan teg leen ci sóob bi day tax du gaaw rees paa bi kaar bi laa doo daal paa bi wàccuwaat beneen sóob bi yow naan doxe 2 kilos loxo yi ci kaw loxo yi ci loxo yi ci kaw. doxool. loxo yi ci. naan xaanaa dangaa dof. yi ci kaw. doxool. loxo yi ci. juuxaanaa dangaa yi